l'actualité en continu actualité mieux facile. fas yéene waxtaanee nag nga xam Aliou Cissé mi convoqué eh, ki di Moussa tay Noah Fadiga Abdallah Dour. ki di Pape Ousmane Sakho Ousmane Diouf en réserviste eh, Abdallah Sima ak ki di Samba Diallo ak eh, kii Lamine Camara dem ci res kii U23 yi John Lopy ñëw ci ay mais La boobu nak yene kay bi sun lomb joxatam njëkk wax ci combat bi nga xam moy dox diggante Alioune Seye ak Bodo Anta nee nañ nag li nga xam mooy combat bi dinañ ko officialiser ci CNG bi fii ak Altiné inshallah allah combat boo xam ne ñëpp ñing koy xaar waye tamit wax ci nga xam kaay bi di stade bu njëkk ñu wax ci nga xam ne mooy Real Bayern Chelsea ak City ah bokk nañ ci li nga xam ne nag mooy gros choc yoo xam ne gars yi ñu ngi koy. daal di séntu ci li nga xam ne nag mooy donc lii di wàllum ligue des champions wax aussi si entraîneur yi nga xam ne nag notamment Malick Daaf mi ko gars yi wax ci li nga xam mooy donc liste bi nga xam ne mooy liste euh, ne Aliou Cissé na leen woo jox ci yenn leeral ci yenn joueurs yi wax wax aussi ci wàllum basketball ak ñi nga xam ne mooy donc AS mi nga xam ne tey nag ñoom dañoo war a jouer ak li nga xam ne mooy donc stade malien waa Douane ñaari défaite lañ tegle waa Douane moom ñaari défaite la ñu tegle ñoy euh, donc nous na euh, donc Patrick Vieira Patrick Vieira entraîneur Crystal Palace Crystal Palace bi nga et tout d'Al, euh, Patrick Patrice Patrice Vieira donc l'international français ancien international français ki donc moo gën a méttee et défendre du keneen ko dul Ousmane Dembus Dembélé daal ki nga xam ne mooy donc kii di euh, David Antoine de Davies daal di wax. Endrick nag xam ngeen ne waa Real moo ko fokkati ci Barça jënd ko ci Barça donc Endrick nag euh, euh, bi da commencé jooy gars yi nag dañuy bañ mu euh, de xam ne mooy donc euh, vidéo boobu moom signé na ba deux mille vingt huit Declan Rice nag moom moo nekk actuellement. priorité bu priorité plutôt bu waaye Blues de Chelsea pour milieu défensif bi nga xam moom lañ bëgg a renforcer seen équipe bi moom daal fi mu ne nii moo nekk seen gët moom lañ daal di koy euh, fas jënd daal ki nga xam ne nag mooy Romelu Lukaku moom nak euh, Lukaku pare na pour euh, wàññi salaire bu baax a baax a baax ngi toog ca Inter de Milan ndax bu ko tëddeelu ca Chelsea te Chelsea également Romelu Lukaku nekkul seen plan ñoom dañoo wut beneen bëgg wut beneen neuf boo xam ne mooy nekk seen neuf de pointe ñi ngi xalaat ñoom Osimhen ak yu ni mel ki nga xam ne aussi moom mooy donc kii di Marcus Rashford moom lañ tabu mu nekk joueur du mois de février du côté de la Prime League Marcus Rashford bien actuellement il est en train de faire feu et flamme du côté donc de l'Angleterre mais aussi de l'Europa League ndax début mo daldi bi Manchester United euh, donc Real Betis Séville Rashford toujours en forme hein. il est fort actuellement Rashford mu fort donc mom nga xam ne bu ñu saison bu metti la Moussa Ndiaye aussi Moussa Ndiaye mom ak Anderlecht qualifié nañ tour Europa League gannaaw nga xam Nicolas Jackson. Jackson donc loolu nag il progresse bien et il était titulaire, c'est une bonne chose. Italie, Ligue des Champions, les trois entraîneurs italiens qualifiés pour la Ligue des Champions, c'est c'est le, le, championnat le plus représenté cette année en Ligue des Champions. Mouidonko, Disgena, ah, Spalletti, Pioli, et également Inzaghi. Donc, Simone Inzaghi, nous sommes dem fan donc ci deuxième tour. Alusi, c'est conférence de presse de day tay la 10h la, 10h le ci 10h la wara doon. Donc a ci wara publier listam, liste bo xamna gaay amna une surprise waxon na len ko côté donc équipe et bi côté défense côté milieu de terrain donc premier bi nak également moi ki nga xam donc Abdallah Ndour Abdallah Ndour nek ci mom nak équipe nationale du Sénégal donc même avant euh, coupe coupe d'Afrique bi ñëwoon na à Abdallah Ndour l'a rappelé dans cette équipe nationale donc le défenseur arrière latéral donc de Socho, ki a xam ne Moussa Niakhaté aussi Moussa Niakhaté fait son retour le défenseur sénégalais donc Moussa Niakhaté dina dellu si ci équipe bi moom gannaaw bi nga xam ne coupe du monde dem blessé reprendre entraînement week-end bi dans les normes war na football dañ koy naal dara bañ ko jot laf cat laf donc il devrait être de retour lui pour honorer sa première hein, sur le terrain hein, sa première sur le terrain je précise parce que euh, sélectionné woon nañ ko mais duggagul woon joué ba léegi donc peut-être que bii dina nekk titulaire wala boog mu remplaçant pour un temps de jeu qui dit Moussa raté donc le joueur de euh, Nottingham Forest mais aussi sa première sélection officielle Mounio Fekeko, fekkee ko blessé au niveau woon ko mu forfait dans la dernière minute Noah Fadiga donc qui devrait honorer sa première convocation officiellement Gaï avec l'équipe nationale du Sénégal et que dire aussi de Noah Fadiga le fils de Khalilou Fadiga dans ñëw di sa papa muy football en ak sa la ba tey y ni nga joueur Sol Mayom, donc même si ce n'est pas le même numéro. Fierté lay ah, pour Khalil Fadiga mais également pour Kidi Noah Fadiga ki nak di Pape Ousmane Sarr. waxoon nañ len ko Aliou daf ko ci liste réserviste yi donc il sera sur la liste des réservistes Qui nga xamné moy donc Pape Ousmane Sarr. le joueur de Simba FC l'ancien joueur de Jambar de Tengue FC il a été formé à Djambar un excellent joueur Pape Ousmane Sarr. mais aussi Ousmane Diouf l'ancien joueur donc de Tengue FC que champion d'Afrique ah, Un des joueurs locaux actuellement donc il fera partie aussi Dans les liste le défenseur donc au Ousmane du côté de l'équipe nationale U23 Demba aussi a appelé quelques joueurs ils étaient sélectionnables pour l'équipe a bokk na ci nga xam nak moy donc euh, kii di donc euh, Mamadou Lamine Camara mais d'abord John Dion aussi bokk na ci ñi Aliou Cissé woo ah ko Dion lopi le milieu de terrain ancien capitaine de l'équipe nationale U20 bokk na ci donc moom Mamadou Lamine Camara le joueur de l'US Berkane donc RS Berkane mom il est donc sur la liste bi nga xam Demba Bay wo pour double confrontation bi contre le Mali donc lui il sera bien présent le champion d'Afrique U20 de même que qui di donc Samba Diallo Samba Diallo le joueur de Dynamo de Kiev le capitaine de l'équipe nationale U20 moom il est présent sur cette liste de Demba avec les U 23 mais surprise bi nak moy ki Abdallah Sima Abdallah Sima nga na ci équipe nationale A hein, donc il a donc il a il est il il il sélectionnable avec l'équipe nationale U23 motax Ba actuellement du côté de donc demul ak U23 yi lay demal aussi donc Paul Valère Bassène championnat Sénégal mom nak dem fa donc convoqué club il y a également le nouveau arrivé le nouveau arrivant Aruna Sangat qui Sangat donc il va honorer sa première sélection avec le U23 de même que les Rassirou les Bassirou entre autres donc gars c'était donc la liste probable que ñu di pour l'équipe nationale A bi nga surpris surprise de Aliou Il y a aussi l'équipe nationale U23 avec Demba pour que ngeen am une idée gars c'est c'était les informations que je vais vous donner toujours un plaisir de vous servir wooy leen like wooy leen abonné Sénégal ci kanam li vidéo yi lu situations néew jaa ngeen jëf fier d'être i Sénégal ca kaw ca kanam jaa ngeen jëf.